ngeen jëf l'observateur la ñuy jël mi ngi ak Assane Diouf borom Dooméram TV yéen a kaay yu bëri xëy ci li nga xamante ne jii moom moo koy yot Assane Diouf ci xët mu njëkk l'observateur gannaaw ba mu nekkee fële ca <laughs> lu xew ñoom moom ñun kenn dañuy dem. <laughs> non bàyyi ma bàyyi ma dellu. toogal toogal toogal toogal toogal. bàyyi ma dellu sama place. non non ay waay dañ leen di dagg di leen bind kenn dawloowu leen seen yëpp yëpp nekk ci bàyyi leen ko bu àggali yëpp. bàyyi <laughs> jërë ngeen jëf nañu jël l'observateur ay ca xool assan Diouf mi nga xam ne jamono jii mi ngi ci ay coona moom Assane Diouf ak coow li ko topp l'observateur xëy ñu xamal ne euh, gannaaw ba mu nekkee fële ci Amérique nekk ci euh, internet bi di jàpp kilifa yi réew mi di leen daggal yi saaga yëf yi dem ba jéggi dayoo euh, gouvernement bu Sénégal dugg ci waa FBI dem jàppee ko enquête ko am na leneen lu feeñ ci ay mbiram moo di séjour illégal ci gàttal aw nekkam ci États-Unis teguwul ci yoon l'observateur xëy ñu xamal ne nag li mu jur mooy àllarba ji di ñëw mu di ginnaaw suba danañ ko dellu aussi fii ci Sénégal yéenekaay bi nañu moom Assane Diouf ak yeneen ñaar fukki doomi Sénégal yoo xam ne ci même situation bi lañ nekk mu di séjour illégal ñoom la ñuy boole kon indi ci réewum Sénégal 2 heures du matin la leen bi leen war a indi di atterrir ci aéroport Léopold Sédar Senghor l'observateur moo ñu wax loolu yéenekaay bi sax dem na bëggan ci sori di ñu leeralal ana lan moo tax moom Assane Diouf mu adopté attitude bi nu mel ndax dafa nekkoon États-Unis bëggoon ay këyit këyit yomb ko tax mu ne eh, dafay jël maanaam pexe di saaga kilifay Sénégal yi di saaga bu ko defee danañ ko menacer de mort wala bokk lu aju ne li nga xamante ne moo di xuppaateeg yooyu mu ne ko sama réew di Sénégal bu ma fa demee dañ may na kon dinañu ko dellu siwaat ak dellu sem ci réewum Sénégal journal euh, nañu ci benn site bu ñuy wax Dakar Midi ñuy xamle ne ki nga xamante ne ji moom moo di Assane Diouf euh, am na lobby bu nekk Los Angeles ba ñu ko jàppee ba léegi amuñu jàmm seen kéemtalaay kàttan lañ nekk def jamono ji ngir bëgg ñu bàyyi ko moom Assane Diouf te it bëgguñu ñu delloo si ko fi nga xamante ne ji moo di Sénégal donte kilifay Sénégal yi sàkku nañu ko ci waa Interpol enterrement bu euh, kilifa bii di Alioune Ardo Sow borom CSE jëdëkaayit xëy nañu ci tey ji bokk na ci la Soleil mi xëy dikkal ñun euh, ci hommage bu mujj boo xamante ne ji delloo nañu ko ko ci levée du corps ba ci teewaayu njiit réew Macky Sall ak yeneen i kilifa bokk na sax ci président bu Mali di Ibrahima Boubacar Keïta yéen kaay bi xëy ñu xamal ne euh, foofee fa la président Macky ne euh, pont de l' émergence mu di pont euh, liggéey pont boobee ngir aussi gën ko ko delloo njukkal la yéen kaay xëy dikk yi nga xamante ne ji nguur gi mi ngi koy def lim moo di gannaaw vacances yi bi nekkee woon jamono ji fi ñu toll mooy ay condoléance ndax président Macky Sall ma nga woon ci diwaanu Touba Mbacké la ko fa yóbboon ak Taïf moo di dem jaale ji Euh, gannaaw wàccub liggéey bi nga xamante ne ci sëriñ Abdou Fatah Mbacké Gaïndé Fatma wàcc na ko liggéey loolu le président Macky Sall def le quotidien ñëwaat ci ngaan gi président amoon ci diwaanu Touba ak ca Taïf ba noppi tegal ñu ci ne def na fay confidence ndax moom président xam le ne ak duggam ci yoonu murit mi ngi jaaree ci euh, Daaru Xuddoos l'observateur ne li nga xamante ji moom mooy confidence yamul foofu mais dañuy dellu ci direct info mi bëgg am lu leer ci lu président Macky Sall di wàcc nañ wax ci wàllu tàggat yaram ak afro basket ba doon am ca Bamako te gaynde Sénégal yi ñàkk final bi stade yéen a kaay xëyee na ko moo nekk na la ci kaw xët mu njëkku yéen bi moom stade di ñu xamal ne lu aju ci gaynde yi kon dañoo ñàkk final bi seen digg ak Nigéria te 65 ci 48 waaye nag terewul qualifié nañu ci coupe du monde bay am ci Espagne ci wàllu basket loolee 2018 la woon Les Échos nañu gaynde yi daanu nañu waaye gàcce ngaalaama ndax lu tournoi beeg yooyu euh, xeex nañu dem nañu ba jeex ba tey entraîneur u gaynde di Moustapha gay di xam ne ne fii lay arrêté carrière entraîneur am ndax yaay moo ko ko sant tey jël na dogal ba noppi du ca nekk di wax waxeet pap ñu wax ci lii te jeexale ko mu di feebar bi dal ñenn ci jigéen ñi cest à dañuy sàcc rek pap d'accord ñu ngi ci enquête waaw mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye revue de presse bi replay bi ci youtube bi slash tfm wala ci euh, journalu euh, diggu bëccëg bi ci télévision future